waaw man maa ngi tudd Rokhaytou Gassama di présidente nationale du conseil sénégalais des femmes euh, conseil la bi nga xam ne ñoo ngi ci région yëpp nekk ci département yeeg commune yi euh, solo bi nga xam ne moo am bi tax ñu yëkkati ku ñëw gis euh, waa Médina renforcer ñun sunu am-am ak sunu mën-mën pour xeex jàngaro ju fi nekk je pense que dafa fekk ñu gis ne Médina dafa impacté woon bu baax ci affaire Covid bi donc am na yeneen communes yi nga xam ne jaar nañ fa comme ni ma leen koy waxee ñu ngi ci région yëpp mais Médina bi ñu gisee loolu ñu gis aussi seen engagement gis ne vraiment maire bi mu ngi liggéey ak euh, ñi mu àndal ñëpp di liggéey pour vraiment xeex jàngaro ju fi nekk. pour que jàngoro ji li may wax rek mooy du caageen ne Médina rek mais jàngoro ji jógee ci Sénégal loolu mooy combam te loolu am na dafa nekk lu am solo moo tax ñun COSEF Dakar commune u Dakar jël engagement ñu ne dañuy ñëw jàppale commune Médina pour renforcer vraiment euh, sensibilisation bi pour wax nit ñi ne feebar bi mu ngi fi feebar bi jógewu fi ñun suñu engagé wul jële fi feebar bi kenn du ko fi jëlee ñu fàttaliku ne rek Sénégal mi ngi enregistré mois de mars benn cas benn cas léegi ñaata cas la ñu am ñu ngi enregistré mois de mars benn décès léegi ñaata décès la ñu am par jour donc loolu dafa nekk li nga xam ne war nañ ci jàngat lu bari war nañu kenn fii ci Sénégal buggul rek parce que euh, mesures yi nga xam ne moom la état bi jël ñu bañ ko respecté yóbbu feebar bi ci seeni kër mu lor seen waajur muy lor seen jabar wala lor seen jëkkër lor seen pap lor seen yaay lor seen nag lor seen rakk donc loolu kenn ñaanu ko yàlla donc moo tax ñun dañu bàyyiwul dañu ne rek vraiment nañu renforcer sensibilisation bi loolu la ñuy def ci en tout cas région yi yëpp notamment dans les communes ici askan wi maa ngi leen di ñaan man Rokhayatu Gassama di présidente national conseil sénégalais des femmes bi nga xam ne xam ngeen ko bu baax yéen ñëpp ci biir ngeen bokk ñoo ngi leen di ñaan sama tur ak turu ñi ma àndal ñëpp pour ngeen yokk sensibilisation bi ngeen yokk vraiment renforcer seen capacité wu xam ne fi mu nekk nii yëf yi metti na lool lool lool Sénégal ñëpp ragal ñëpp tiit ngir yàlla ak yonent ba ñu ngi leen di ñaan ngeen renforcer. sensibilisation bi nga xam ne moom la ñuy wax ne mesure yi nga xam ne moom la état bi jël mooy port masque nañu sol masque respecter mesure yi pour aar sunu njaboot mais aar sunu bopp aussi